salaamaaleykum dañ jógee barki démb ci événement bu mag les Jeux olympiques xam nga euh, les Jeux olympiques li muy dajalee ci nit moo ëpp sax lafa jëm ci championnat du monde parce que Jeux olympiques su ngeen ko xoolee léeg-léeg dama naan gaañ ñi nawetaanu tous les sports la sur le plan mondial. Jeux olympiques mi ngi noonu ñu jóge ci barki démb man ni nag comme dañ ciy jóge damay jëlee damay jëli. le plus olympien des sportifs sénégalais tey dama leen indil le plus olympien des sportifs sénégalais vous me poserez peut-être la question de savoir comment ki ëpp li mu dem Jeux olympiques comme sportif moom sportif sénégalais di doore Montréal 1976 Montréal Moscou 80 Los Angeles 84 Séoul 88 Barcelone 92 mu def cinq Jeux olympiques cinq Jeux olympiques boo ko xoolee c'est vingt ans de haut niveau les Jeux olympiques dañ koy organiser organiser tous les quatre ans kon mu nekk vingt ans de haut niveau te am na fu mu jóge te boobu ba léegi mooy entraîneur bu équipe nationale de lutte africaine depuis 1993 bare na ci yéen ñu nga xam ni dañ ko ràññee kooku moo di Ambroise Sarr ku ko gisul dégg nga yi nga xam ni. mi ngi koy def ci arène bi man nag ma am ci moom souvenir bu benn combat bu rëy fii dem ba Diop danaa ci dellusi ak moom Ambroise ma bàyyi la nga nuyu soppe yi ñi nga xam ni dañ sa sop di la xool di nga daan bëre nga yore équipe nationale bu Sénégal bu lutte africaine ak ñi la daan accompagner ci Jeux olympiques yi parce que tey jii loolu moo la fi indi damay indi ci plateau bi le plus olympien des Sénégalais dafa def juróomi Jeux olympiques une les quatre ans soo ko xoolee mu nekk vingt ans de haut niveau ma bàyyi la nga lay maa ngi lay nuyu yow mi nga xam ne xam nga tuuti si suma carrière <laughs> mun naa wax ne sax. lépp luy jeux olympiques yi yow déplacé nga ci xam nu mu demee moo tax nga mun na xam ne. man bokk naa ci ñi nga xam ne def naa olympique yu bëri. wax nga dëgg. maa ngi nuyu aussi waa personnel u TFM. Eh, te di leen ñaanal li ñu sumb yàlla nañ ci génn ak jàmm. amiin yàlla nañ ci am succès. amiin fu a dem ñoo ko xam yàlla na ci yàlla ànd. amiin ñi nga xam ne ñu ngi seetaan aussi à travers TFM maa ngi leen di nuyu di leen sant ci déglu bi nga xam ne ñu ngi koy déglu télévision bi. wax nga dëgg Jeux olympiques nag au Sénégal ku ko waxtaanee dinga nga door ci Abdou Seye mu nekk le premier sénégalais bu yéeg ci podium sous le de l' de France nous sommes à en 1960 booba temps fraîchement dañ dem indépendance mais amaguñu woon comité olympique ba nga xamee ni dafa nekkoon encore euh, moom su la bannière de l'équipe de France moom Abdou Seye génération ñoom Malick Mbaye génération ñoom euh, euh, Lamine Diack Habib Thiam avec qui il a partagé le maillot de l'équipe de France et Papa Gallo Thiam donc Abdou Seye 1960 à Rome il y a aussi Amadou Gakou en 68 finaliste finaliste à Mexico jël quatrième derrière un trio américain gannaaw Amadou Gakou Amadou Diaba du haut de sa performance de Séoul 88 on se souvient encore c'est euh, 47 secondes 24 centièmes bi ko jox médaille d'argent Amadou Diaba aux Jeux olympiques à Séoul en 1988 ñooñu euh, bu ñu fa jaaree ba pare ci Ambroise Sarr mi nga xame ni daf leen gën a fete ndaw ah ci la ñuy débouché parce que ba Barcelone 92 dem a fa. Ambroise bala may accès ak yow ci Jeux olympiques yi dafa am foo jaar avant nga ñëw pour waral demal Sénégal Jeux olympiques foo feeñee ci mbër ci bëri fan nga feeñee. waaw pour euh, continuer dama lay dëggal ci sa wax ci Abadou Diaba. Mhm. gis nga dañ koy seetaan. jour bi ñu ñëwee mu perte final dafa ñëw maa ko njëkk a ne Abdou bi yaa ko moomoon. di gëstu ndax ki raw nga ko mu mu mu def la ko. mais médaille d'or ci yow la waroon a njëkkee. est-ce que moomoon dafa nekkoon ci waay. waaw daf ko gëstu. dafa xool ndax fu mu toll fekk raw na ko. bu yàgg te xam nga course moom. boo gëstoo rek raw nañ la. wax nga dëgg lii moo ko xañ médaille bi. keroog kuy sénégalais rek fier nga. ci jaba waaw waaw keroog kuy sénégalais vraiment. fier nga ci jaba ba pare nag ñu dañu kontaan ba pare am ba pare am lu ñu naqari. waaw parce que argent boobu or la woon. la or la dafa taxawoon. waaw dafa taxawoon mais nag bon comme loolu la yàlla dogal. waaw or bu changé xaalis la. amul benn problème yow nag sa mérite moo di ñooñu. yaa leen ëppale li nga dem Jeux olympiques muy Abdou Seye di Amadou Gakou di Mansour Dia di di di Jaba mi nga xamee ni am na fa argent mais nee naa bala ngaa ñëw équipe nationale dafa am fooy jógee. fan nga commencé am Ambroise maa ngi commencé bëree. palmarin xam nga ñun dañu doon bëre. Mhm. parce que ku dëgg Culiande. Culiande. <laughs> nga xam ne kooku mbër la. mbër la doon suma papa. Ah. donc ñu Culiande waaw. mooy sa papa. mooy suma rakku papa. ndeysaan. léegi ñun fu ñu commencé mooy ci tefes gi. Mhm. bu ñu mosaan béy ba pare dañuy bërentu ci tefes bi di sangu di bëre. ba pare nag suñu mag yi bu ñuy dem ci compétition ñu ñoo jël seen bagage yi. Mhm. téye leen que te booba dañuy wax ne ku téye bagage mbër doo dugg saret ñun xamuñu woon waaw mais léegi gars yi dañuy dugg saret yow nga dox. Mhm. parce que ñun bagage bi du dugg saret. Mhm. tu vois donc loolu la mag yi xew xewloon ñoom dañ leen di yóbbu. ñi nga xam ne ñoo war a bëri ñun ñi nga xam ne ñoo yore bagage yi ñu dox fekk leen. est-ce que ñun foofu lañ commencé. est-ce ci mbapat lañ commencé. liñ daan def dem ci benn dëkk def fa une semaine bërintu tu vois ba trois jours yi des poids léger bi poids moyen bi ñu bëri poids lourd yi mu tas ñu dem ci beneen dëkk daan nañ toog trois mois yoo xam ne dañuy bëri rek bu ñu jógee fii dem fële. dem fële ba trois mois. ba ñu ñib si. est-ce donc foofu lañ commencé ba bi ñuy ñëw dakaar aussi mbapat lañ def dem bi ñuy dugg arène. voilà man nag ma mos a seetaan sa benn combat à Demba Diop. keroog laa la tiim combat boobu maa ngi ko seetaane découverte defe naa 72 la. waaw 1972 4 ans avant ngay ñëw équipe nationale ban année nga ñëw Dakar 66. 66 72 dama koy waxtaan sa combat boobu ak Birahim Ndiaye ci match nul boobu laa gis public bi. naan doy na on est satisfait on est satisfait du nul yàgg Birame bëre ngeen xeex ngeen pendant 30 minutes ëpp ko. ëpp na ko une heure une heure de temps. une de temps parce que boobu. Ah. Euh, bërëb bi kenn réglementé ko ne alors temps de minutes. waaw da ngeen di bëre ba arbitre bi mooy jugé daal ke war nañ ko àtte. ñu àtte bi amagul kii voilà boobu règlement bi amagul parce que dafa yàgg. waaw def na une de temps def na une heure. laay parce que booba bon xam nga ñaari technicien mm-hmm. ñoo taxaw. Mm-hmm. ku nekk sawaat. dëkk ngemb la ba pare sa écrit ngemb la. moo tax mënuloon a neex. Mm. encore muy Demba Diop. fi nga mm. xam ne du ñu bari ñoo daan bëre foofu. wax nga dëgg il faut grand combat bi nga xam ne dañ ko médiatiser. Mm-hmm. foofu lañ ko daan yóbbu. nga dëgg keroog bi may ñëw bi may jógee suma dëkk dañ ma wax ne Ambroise. Mm. combat bi pour nga daan il faut nga dem ngemboo foo xam ne kenn xamul la. dem fu la kenn xamul. waaw. foofu ngay ngémboo loolu jafe na bi ñu ñëwee ba ci wetu stade bi nag ah. ci escort foofu escort nag ah. ñu wàcc ci parking bi waaw ci parking bi ma gàddu suma saak ñuy dox di dox jékki-jékki rek ma gis benn kër man ne gars nañ dugg fii ñu dugg foofu ni yàlla di def muy séré muy Cheikh Thiaré par hasard mu nekk kër Cheikh Thiaré te boobu xaw ma kuy seex Thiaré waaw Cheikh Thiaré na dégg na am mais mënuñu oui oui ma dugg nuyoo ma a ah ñun de dañu am combat fii te bugg a ngemboo fi mun na fii sa kër la. ndeysaan Cheikh Thiaré. ci saa si mun la sa kër. nii lañ xamante lay lay la. te gis nga ba yàlla def. mu nekk nag sa kër mbokk. waaw kër mbokk ba pare yàlla def encore mun ñëw ba yore làmb ji. est-ce que. est-ce que yow yaa ko dugal ci lamb ji ah <laughs> keroog sa gàllaaj yooyu ko dugal ci làmb ji ah, mun naam <laughs> boobu temps béy moo nekk président mais dafa confié mhm. lu bari ci làmb ji donc ba yàlla macha allah ba mu toll ci làmb ji oui oui dem comité olympique ainsi de foofu laa ngemboo dem stade waaw mais dañu bëre ba xam ne ku nekk munatul dans sa morom mhm. façon bëre bu nekk génne nañ yàgg voilà bëre ngeen façon bëre bu nekk xeex nañ bëre ngeen façon loolu mooy maxinil boo xam ne ñëpp dinañ ko soxla ba nit ñi yërëm leen naan public bi doy naan arbitre bi nul doy na nul waaw voilà nous sommes en 72 Ambroise laa leen indil kii 72 laa ko découvrir mu nekkoon combat bu nga xamee ni keroog wax dëgg yàlla euh, ku ko seetaan man atte leen ndax yërmande lu mu laajoon jox nañ ko maa ngi naan 30 minutes mu ne ma booba temps règlement amul bëri nañu une heure de temps alors nous sommes en 72 76 ngay dem Jeux olympiques Montréal euh, muy sa Jeux olympiques yu njëkk. bu njëkk bu jëkk bu Sénégal boobu ñan ñan ci nekkoon. waaw 76 boobu nekkoon na man Double Less Pape Diop Amadou Kati Diop. ñii ñoo nekkoon. ñeenti lutteurs ñoo xam ne Double Less Pape Diop Kati Diop yow. waaw. ñoo xam ne ñoo nekkoon ci délégation bi comme lutteur. Mhm, comme lutteur waaw ñoo fa dajal Montréal. bon premier tour bi maa ngi tase ak benn Bulgare mu gagné ma. Mhm. ma tase ak benn congole ma gagné ko. Mhm. ma tase ak benn xaw ma américain mu gagné ma boobu boo amee deux défaites. Ah, tu es éliminé. waaw. nga def trois combats deux victoires une défaite. waaw waaw ah, bulgare beeg américain. voilà nous sommes ban fàttali ko parce que Jeux olympiques yu njëkk nee nañu euh, moo lay gën a dugg dafa mel ne que aj bu njëkk. aj màkk bu njëkk. Euh, même su fekkee ni ci topp gën a neex. Mm. mais bu njëkk ba nga gën a am fàttali ko ban fàttali ko ci am ci Montréal bu njëkk ba. parce que boobu comme première voyage la. Mm-hmm. nga ñëw dem olympique. xam nga foofu déjà da ngay yàkkamti dugg avion. waaw. si li ma gën a fàtt xam dugg avion. yëpp découverte la waaw découverte ba ñu ne suba la ñuy dem. Mhm. parce que boo gisee moo wax la loolu en 74 ci laa waroon a qualifié pour championnat d' Afrique. mais dañu préparé ba dernier jour bi. Mhm. dernier jour compétition bi. man nag dem si yàlla dóor bu bakasaar waaw dañuy dem rek mu songe ma gannaaw ma botti ko mu baraste ko fi ma sukk fi mu damm suma baaraam bi mais ak ni ma yàkkamtoon pour dugg avion ma xool ko damm na mënatumaa dem ma ko ne di nga ay ñaan nga ne ko yaa añaan di nga iñaan ma def ndeysaan boobu ñoom lees ak ñoom euh, Pape Diop. Mhm. ñoo dem ñoom Arona Mané nekk champion d'Afrique ak euh, ñoom euh, riche note la kii. riche ki doon non ki doon liggéey euh, IPRES. maam góor gi non non pas maam góor gi. pas grave on passe waaw donc foofu moo waroon a njëkk. moo njëkk nekk sa sortie waaw bii nag moom bi ñu wax ne suba la. mu mhm. sax. 76 bi di xalaat bi nga waree dem Montréal. waaw di ah xalaat avion bi rek. tu xam nga loolu yëpp. def ci loo xam ne découverte la. boobu ñaataat nga boobu maa ngi ci ay 21 ans. ndeysaan 76. Mm. Ah. mu nekk nag yow loolu mooy ci mooy bi ngay judd ji ci compétition. waaw voilà 76. nga def fa 3 combats. benn bulgare benn américain gagné benn. Congo nga war dellu si Moscou en 80. Ah. c'est-à-dire balaa may ñëw Moscou. Ah. dama dem championnat d'Afrique. damay damay jëtal Jeux olympiques. après naa dellu si championnat d'Afrique. waaw léegi léegi. Euh, euh, nga def euh, Montréal 76 sa yeneen Jeux olympiques yi di Moscou 80. Moscou 80 boobu aussi rëy na Moscou. foofu moom. boobu moom maag yéen a ànd ak Double Less. voilà Double Less mu foon aussi Pape Diop y avait aussi waaw je mm-hmm. que boobu Jeux olympiques yi yaa ngi koy jëlee ci championnat Afrique. Mm-hmm. pour dem Jeux olympiques foog nga qualifié. Mhm. nekk ci championnat d'Afrique ngay jaar qualifié dama la fàtte laaj ku doon sa entraîneur à Montréal bi ñuy dem Montréal. bi ñuy dem Montréal euh, kii euh, Rossès. Ah, ah lan la tubaab la la woon waaw tubaab. Ah, waaw c'est vrai maa ngi gisaat tubaab boobu. bu gis bu kilo te njaxlaf. waaw mu ngi dekkoon toujours fee kii dëkk fi nekk léegi la Njàmbur. Njàmbur. waaw ci riz boobu la nekk. voilà uh-huh. Moscou aussi moo la yore woon. waaw moo la yóbbu Montréal 76 Moscou 80. waaw Rochesse Moscou ñoo fa daje. Moscou nag foofu foofu neexuloon. Mhm. parce que. Moscou équipe ba laa laati toujours. waaw man. les mêmes Double Less waaw les mêmes. yow Double Less. waaw ak l'autre là. y Robert aussi. Robert Robert def na Moscou waaw d'accord waaw Robert def na Moscou parce que moom ak Dubalès ñu bëre fekk suñu Arona Mané aussi ci la woon ah, dem si yàlla Arona Mané parce que ñoo àndoon dem mhm. préparation après mhm. ñi Moscou def combien de combats à Moscou foofu deux combats laa def ñu gagné ma dey waaw ñoo dajalati fàttaliku na. mais du ñu africain de. non non du ñu africain parce que euh, waaw booba temps réew tubaab bi ñooñu boobu africain maa ko mën. yaa ngi fàttaliku euh, bis ba ñuy waree añee ji ambassade du Sénégal Moscou yaa ngi xam ngeen lu tax ma laaj ko loolu. <laughs> dégg ngeen barki démb Dubalès nii euh, maa naan ataayaam. waaw invité ambassade du Sénégal. waaw ñu añi Moscou 80. Moscou ma ni man maay xiim parce que dama nam ma ataaya. ñu lekk fa ceebu jën bu neex. gàddum ceebu jën. ma ni man may attaaya parce que attaaya ji ma namm gars yi bi ma namm ma defar ko du bale sa toog sama wet ma yëkkati plateau bi jox ko ni ko lees am jàlleel mu yëkkati ñeenti kaas teg ci kanamam ma ne ko lees looy def nii ñeenti kaas yi boo ko jëlee yow kenn ñii ñu am mu ni man li may naan sama kër laay naan fii sama kër ci kopp ndékki la te ñeenti kaas yi mooy sama kopp ndékki ci laay naan attaaya su ma ko naanee ci laay yëg ni wàcc ni sama biir mooy attaaya ji muy waxtaane bërki démb quatre-vingt mos koo ngi noonu <laughs> Ambroise 84 ñu nga États-Unis Los Angeles. Mhm. entraîneur ba kan laati. Los Angeles euh, euh, kii euh, Sega Sega Sega un certain Sega. Sega moo nekkoon directeur technique bi. groupe bi changé na lutteur yi. yow man Double Less. Double Less encore Los Angeles. Los Angeles. Uh-huh. fàtte nga ñaar ñi ci des. boo fa dajal Los Angeles. voilà Los Angeles maa ngi. premier tour laa taseeg un américain fa fois champion d'Afrique champion du monde. moo ko wax Gougner. kooku de doo jàll. jàll wul doo jàll non kooku. dama lay wax rek. arbitre bi dafa ne përp ma jël ko. door ko ba ñuy wax nag tuus na ou bien tuusul tuus boo ko déggee. Hmm. épaules yi laal ci tapi bi. waaw mais arbitre bi yàlla xam na ne dem na bay dugal loxo ndax laal na ou laalul dem na bay yurndu mais ma wow ci gis nga bi ma ko bësee ba sonn. Hmm. bi mu rëccee gis nga bi may gañee hmm. ak médecin yi biñ may jël si ci tapis bi benn la. américain la waaw. Hmm. parce que gis nañ ne kii normalement africain waru koo mun a def lii. Hmm. kii donc dafa dafa doppewu gis nga bi may dem. ma entraîneur bi kii dem si yàlla François boobu topp suñ gannaaw. ñu ñëw ñu dugal ma xool. gisuñu dara dañ def ne da nga doppe. waaw ndax li nga def waaj li ma def waaj. ñu ni c'est pas possible war waruloo ko mën def loolu. waruma koo def loolu. <laughs> donc foofu François mu ngi foofu. Mm-hmm. gis nga bi ñu génne gisuñu ne dafa kontaan. ndeysaan daf ma may cent dollars yàlla xam na ko. dafa kontaan mu ngi ci dëgg maa ci fen. ndeysaan cent dollars ma ne moo kii bu ngeen bokkoon condition liggéey. yaa ko moom c'est vrai c'est vrai. sa la woon. boobu ma jàpp mongol bi. Ah. taxawuñu. mongol bi yaa ko yaa ko gagné. américain bi daf la gagné nga gagné mongol bi. mu des. mu mu des Union soviétique. mu mu gagné boobu. gis nga uh-huh. ñi bëre bi mu ngi woon Yougoslavie Roumanie les les les américains. wax nga dëgg donc ma perte foofu aussi. Voilà. Deux combats. Deux défaites, une victoire. Mm -hmm. On est en 84 à Los Angeles. Los Angeles. Séoul 88. Bobo aussi, nous avons deux fois. Mm-hmm. Moscou 80, mm -hmm. Corée foofu aussi de défaite la aligné. deux défaites waaw ñoo ñan la ak ñan. kooku les coréens organisateur. Mhm. Euh, keneen ki en français. te xam nga li ma jaaxaloon ci loolu Ambroise. waaw boobu temps yii da nga dem ci loo xam ne amul Sénégal. non xam nga euh, ni ma la ko mën a expliquer mooy. ñu ah. euh, ñun suñ préparation daawul méngoo ak ñii ñii dañ ko préparer quatre ans. Mm-hmm. ñun bu ñibbisee Sénégal amul club boo xam ne kii dafay nekk fii kenn nekk fa ngeen di compétir. Mm-hmm. mais suñ jom ak suñ mën-mën. ak suñ kantan moo ñu daan yóbbu. léegi dañ leen di préparer veille yu Jeux yi rek. voilà veille yu yi. parce que alors bëre bi ngeen di def fii aux Jeux olympiques amul au Sénégal. waaw amul. Mm-hmm. Sénégal fii daal da ngay préparer une semaine deux semaines bon ci Ibama Demba Diop. ainsi de suite. voilà mais nag yàlla xam ne ni suñ jom gis nga préparation booy am mm-hmm. léegi mm-hmm. di dem ay ay France buñ ko amoon naaw ñu nekk médaille d'or <laughs> alors ces Jeux olympiques bi mujj bi yoon yaay entraîne yaay entraîneur waaw Barcelone 92 ñeen nga yóbbu woon ci équipe boobu ñoom Alioune Diouf laa yóbbu xam nga Aliou Diouf waaw boobu man maa ko yóbbu woon Caire première ah. participation mm-hmm. dañuy jaar France def préparation foofu à Besançon. Mhm. mu ñëw jël médaille d'argent donc ñoom ñoo maa leen yóbbu comme entraîneur. équipe bi ñan la Aliou Diouf ak kan. y avait Aliou Diouf euh, y avait kii encore mhm. toujours. bi baaxul de. waaw mais Aliou Diouf daal xam naa. Aliou nga ci. waaw waaw tu vois. oui oui donc y avait moo ñu moo ñu moo moo moo nekkoon directeur technique. ah d'accord Ibra Yad. Ibra Yad voilà c'est ça moo nekkoon directeur technique. oui oui bon foofu aussi bon. dañ leen teel a éliminé. Rochers moo la yóbbu Montréal. waaw 76 Moscou 80. Mm. Los Angeles 84. ak Séoul 88 ku la yore woon comme entraîneur. y avait l'autre là euh, Ibra Yade. Euh, alors kii nekk technique bi. ah d'accord voilà. ah d'accord donc yow nga def cinq Jeux olympiques. lii moo indi man ni su may def quelque sur les Jeux olympiques moom mii laay woo mooy sénégalais bi def cinq Jeux olympiques ci tapis quatre comme pratiquant cinquième bi euh, comme entraîneur mais pour nga dem Jeux olympiques léeg-léeg biir Afrique ngay xuus. ñaata yoon nga nekk champion d'Afrique Ambroise. dama ne soixante soixante dix sept ba quatre vingt huit maa nekk champion d'Afrique ci suma catégorie. maa ngi njëkkee nag ci quatre kilo deux kilos. quatre vingt deux kilos quatre mhm. mhm. boobu Ngiraan Ndoye. Ngiraan moo ñuy nekk président fédération. wax nga dëgg. dama ñëw ci lutte gréco dem ba final. Mhm. njëkk a marqué waa ji point marquaat ko point muy deux. Mhm. ci deuxième mi mu égaliser temps bi jeex. Mhm. mais règlement bi dafa prévoir que ki njëkk a marqué. ou bien ki nga xam ne mun na xam nga ci benn la commencé ba ñaar. waaw maanaam mun naa laa marqué sud boo xam ne deux points la. mais tant que loolu amul. ki njëkk a en tant que nul yow yaa moom médaille bi. Mhm. mais dañ ñu labaj. boobu aussi ngiraan. <laughs> waaw nekku nekk ñëwul. waaw ci compétition bi. gars yi gars ñu ne waaw ki égalisé. xam nga affaire naar ki égalisé moom moo. mooy jël médaille bi. mooy jël ñun xamuñu. mais bi ñëwee ba wax ko ngiraan mais dafay dem na beeg di xeex ak président bi. waaw ah oui. parce que président bi xamoon na ni du dëgg. waaw te mu nangu. waaw ah, donc foofu ñu petu mais waaw ma ñëw ci lit libre bi nga xam ne mooy suñu spécialité mhm. égyptien bi lit quatre fois champion d'Afrique gàtt fees mhm. xamuma def ma jàppee comme bleu débutant la ma jàppee mhm. te man ma ma njëkkee Jeux olympiques si dafa ñëw dama ko dóor avant bi jeex gagné naa ko gis nga bi ñu yëkkatee suma loxo dafa mm. daw di mbëkk sees yi <laughs> ndeysaan dafa daw yàlla xam na di daw di mbëkk sees mbëkk sees ndax déception am foofu ah. médaille d'or ak médaille d'argent médaille d'argent alors kon champion d'Afrique tu l'as été ñaata yoon dama ne de soixante-dix-sept waaw ba quatre-vingt-huit maa nekk champion d'Afrique champion d'Afrique mais euh, champion d'Afrique dañ koy organiser tous les ans waaw pour, pour ans lañ ko doon def pour les waaw dañ jógee Alexandrie dañu ñëw Maroc. oui aussi dama am médaille d'or ak médaille d'argent. Mhm. foofu sax eh, mun naa wax ne sax ajoon ma ajoon nañ ma à vie. parce que li tax ñu bëggoon ma aj à vie man may marqué man may marqué point bi ñuy wax ne prise ratée. parce que mhm. boobu eh, waa ji bu bu yób bu la yóbboo prise. Mhm. te maîtriser ko be arbitre bi gis ne maîtriser nga ko. Mhm. bu raatee dañ leen di jogal parce que moo tenté prise bi. Mhm. Mhm. mais daf koy def dama koy téye ba ñëpp gis ko. ma door ànd ak moom war a marqué un point ñu ne prise raté. ma xam ne kii dafay sot ma door ko. dafay ci tapp bi. gaañu mi ngi nii kon Ambroise Sall euh, Sarr laa ni émission bi moo ko moom. di bay seetaan télévision bi Jeux olympiques yi ma ni kii émission bi Ambroise ak moom. lendemain des Jeux olympiques moom laa koy jox moom laay invité moo dem juróomi yoonu Jeux olympiques ñeenti comme lutteur benn yoon bi juróomeel bi comme entraîneur ça fait vingt ans de haut niveau. léegi Ambroise yaay entraîneur national de lutte africaine ah équipe bu Sénégal bi nga bi nga yore depuis quand nga ko yore équipe nationale bu Sénégal bi. dama dama jógee ci Séoul euh, Barcelone. Mhm. ñu jox ma équipe bi. 93 93 da nga jógee jox ma en 93. mais bi ngay dem déjà yaay yaay entraîneur. waaw yaay entraîneur national. waaw waaw. man dama jógee ci olympique bi ñu jox ma lutte africaine. Mhm. c'était en 93. Mhm. en 93 nag am nañ ay championnat d'Afrique. Mhm. yu ñuy organiser Sénégal moom mos a nekk champion d' Afrique titre bi mosuñ ko perte benn yoon lañ ko mos a perte ci championnat te équipe bi ñu ngi ko euh, tournoi bi ñu ngi ko organisé woon au Niger. Mhm. Nigérien di fraude ñu jàppaleen Cheikh Thiar xam nga comme dafa baax te gars yi ñoo organisé ñoo xam ne ah bu fekkee ne Niger mu organisé te pays de lutte la ñu élimine leen ngir fraude. mun naa indi catastrophe. Mhm. ci dëkk ba. Mhm. boobu nag nekku moom foofu parce que ma préparé woon équipe bi. Mhm. ba mu des deux semaine ma feebar xam nga nerf sciatique ma entré hôpital ñu opéré ma. suma deuxième entraîneur di Mindor. ak euh, ak Ibra euh, ñu yóbbu équipe bi. xam nga lay gis nga sport. saa yoo ko arrangé rek. mooy ñàkk nga compétition. ak dëgg. booy moment bi nga xam ne dañu am opportunité pour. Mhm. gagner combat gagner leen. Mhm. dégager leen. Mhm. ñuy xool li muy jur ëllëg. foofu la ñu perte. wax nga dëgg. waaw wax mais li ci des yëpp championnat d' Afrique la Sénégal moo ko mos a téye. wax nga dëgg bi ñu jógee nag championnat d' Afrique ñu ne CEDEAO. treize éditions. CEDEAO treize éditions. waaw Sénégal gagné na ko dix fois ren. dix fois waaw. Niger ñaar Nigéria benn. Mhm. donc mun naa wax ne macha allah. waaw macha allah kay macha allah mais mais ci côté boobu Ambroise fooy jëlee say lutteurs foo jëlee say lutteurs parce que euh, équipe nationale bi lutte bi ngeen di def fii au championnat d' Afrique au Sénégal. xam nga ñu koy jëlee ci mbapat yi. ci yi hmm. xam nga bëri mbapat la. Hmm. ci tournoi yu mag yi tournoi def yi. tournoi de souvenirs ay gaal gi ay Grand Yoff mhm. Adrien Senghor waaw ak ci àll bi waaw ñun foofu dañuy wër di xool ñi nga xam ne puisque laay mhm. tournoi yu mag yi ku dem demi finale quart de finale jël nañ sa tur jël say coordonnées ci tournoi yu mag waaw ci ngay def détection waaw parce que tournoi yu mag yi mhm. gën gaa tuuti dañuy am cent combats ci ci ci ci guddi gi ci ci journée bi sur cent combats kenn ku dem quart de mais am na loo yor. am na am na lu fa ne. am na lu fa ne. ci foofu la ñuy détecter mbër yi bu ko defee nag. mais balaa ñuy woote nag pour regroupement dañuy wax VSD vendredi samedi dimanche. waaw vingt personnes. waaw la jël ñi nga xam ne quart de finaliste yi demi finaliste yi ak finaliste yi vingt personnes ñu woo leen vendredi samedi dimanche xool leen xam nga foofu. da ngay daal di am idée. Mhm. boo buggee woo sa équipe déjà gis nga piste boo xam ne foofu nga war a jaar. foofu ngay jaar ñun nii la ñuy convoqué mbëri ñun duñ dem ci écrit ne alors écrit fale dem di xool entraînement ba pour jël fa mbot déedéet. Mhm. duñ ko def te duñ ko mës a def. ñun daal fi nga xam ne mooy compétition yi. Mhm. li nga mun moom ngay wane. foofu lañ lay xoolee jël buy am foofu lañ lay jëlee. Ambroise Sarr laa leen indil tey. plusieurs fois champion d'Afrique de lutte catégorie 100 kilos. 100 kilos 100 kilos le plus olympien des Sénégalais des sportifs sénégalais juróomi Jeux olympiques 4 comme lutteur cinquième bi comme entraîneur. mais mi ngi defar ci dëkkam yeneen Ambroise fale sa dëkk Palmarin yëg naa ni am nga fa école de lutte. waaw man ña fa ña fa nekk. léegi fa école de lutte. xam nga Palmarin fu mu nekkati. Palmarin mu ngi ci région de Fatick. Fatick waaw arrondissement de Fimela. la waaw. maa ngi fa école. ça fait cinq ans ngi nii ci laa yor école bi. depuis cinq ans. depuis cinq bu dee dóor benn yoon ñaari yoon la lañ ci am combat muy Fodé Sarr bi nga xam ne mooy nekkoon détenteur drapeau chef de l'État. kooku mm. ci suma école la nekk. waaw ak Jama aussi mos nañ ci am combat mais depuis lors eh, suñ booy euh, kuñ ko wax rek nga am looy moytu. Mm-hmm. ki nga xam ne mooy def 66 kilos muy Cheikh Ndiaye suma école la nekk. Mhm. ki nga xam ne mooy def 86 kilos ci ci man la nekk. Mhm. muy Gaskel Jàmme. Mhm. ki nga xam ne mooy def 100 kilos muy Fodé Sarr ci ci man la nekk. donc léegi plus de 100 bi xam nga ko usine doole muy Saliou Diomaye Diouf. waaw ak euh, Moussa Fall. les deux donc nii ñi ñëw def compétition ren. voilà kon boo gaañee Ambroise laa leen indi tey looy tàggoo euh, ñi nga xamee ni gëj lañ la gis di fàttaliku sa combat boobu bu 1972 ak Birahim mu nekk le combat le plus long une heure de temps de bagarre et de lutte règlement amul gars dañuy nekk rek. ba chute am chute amul pendant une heure ngeen di bëri di xeex. c'est certainement le combat le plus long au Sénégal. sa boobu combat maa ngi naan 30 mm. minutes. nga ni ma une heure de temps. Mm. parce que tellement guddoon. combat bu amoon na. waaw. contre Double Less ak Robert. Ah. Mbaye Gueye moo àtte combat ba. Ah. parce que yàgg na te métti na métti na te li ñu. li li gars yi li tax gars yi fay gis nañ ko. Mhm. te mënu jeex mbay moo tas combat ba. mbay gi ndeysaan ci laabiram. ak yërmandeem waaw parce que gis na ne ku nekk liñ la fay remplir nga ko. parce que xam nga léeg-léeg minutes xeex ci sport de combat. waaw mooy 30 minutes football. 3 minutes xeex. Mhm. Euh, Mbaye Gueye li mu def loolu xam na ni booba gaa yaa ngee suuf mais keroog yéen tamit public bi moo at waaw gis na ne jaadootul en 72 sa digganteeg Birahim waaw ma bàyyi la nga tàggoo tëj waaw maa ngi leen di sant comme ni ma ko commencé woon wax mhm. eh, yéen a xam li ngeen bëgg jërëjëf Sarr li ngeen bëgg te yàlla na leen ko yàlla jox jërëjëf Sarr li ngeen bëgg dina leen jig yàlla na leen yàlla jox loolu amiin ñi nga xam ne ñooy déglu émission bi aussi maa ngi leen di sant ñu gën déglu émission bi parce que émission bi ku ko déglu di nga am loo ci jëlee. wax nga ci xam-xam wax nga dëgg. ci loo xam ne ci sport la ma. wax nga dëgg kon Ambroise Sarr laa leen indi tey bu ñu waxtaanee Jeux olympiques ngeen dégg Abdou Seye dégg Amadou Gakou dégg Mansour Dia ah ñi nga xam ne dañu ñëw final Jeux olympiques Abdou Seye am médaille Amadou Diaba. Euh, Séoul 88 47 secondes am yooyu 24 centième yi duñ ko fàtte keroog moo ko làngal moom nee na ko sax yaa moomoon médaille d'or bi Ambroise wax na ko ko da nga doon toppatoo Moses alors que yaa yaa raw Edwards. moo ko rawoon moo war raw Edwards. moom daf ko rawoon Moses ah. Moses jël troisième. Ambroise Sarr kon moom laa leen indi tey gis nga performance lii lay jëriñ parce que sportif bu ko def dootul dee waaw dootul dee parce que émission ñu ni sët yi seen maam moo fi defoon lii il y une centaine d'années moom laa wax ni euh, yii amul njëg def performance pour ce pays amul njëg da ngay dugg ci néeg bu nga xam ni kenn dootu la fàtte Ambroise jërëjëf. merci d'être venu gëm naa ni di fi dellu si ak say sportif comme yaay entraîneur national. de lutte africain et fi dellu si parce que kër gi tamit këru champion la waaw ngañ njaañ ñu ngi leen teg bët te gëm naa ne di nga àndaat ak ngañ njaañ fii di waxtaan ak sa xale yi. kon boog ñëwoon démb tey Ambroise Sarr laa leen indil kenn dootu ko présenté euh, ku ko euh, gisul tamit dégg nga ay jalooreem loolu moo indi mu nekk à la tête de l'équipe nationale di Sénégal bi def cinq Jeux olympiques ñëwoon démb jërëjëfati merci de votre soutien ak cofeel bi ngeen am ci émission bi surtout les Sénégalais de l'extérieur di ko wéttalu koo xale yi nee nañu dañ ciy jàng parce que ñi bind ci ñoom lu bare te bu ñu jógee ci émission bu mel nii dañ cee jàngat lu bare xam kuy Ambroise xam kuy Mbaye Guèye xam kuy Double Less xam kuy Aladji Diouf xam kuy Euh, euh, Adidas de basketteurs yi et cetera parce que wàll wi ñooñu lañ leen di restituer li fi amoon démb te mag leen tey jii ngeen war maaseek moom jërëjëf Ambroise. merci à la prochaine njabootu ñëwoon démb à la prochaine merci de votre minable attention jërëjëf.